ñu ñëw ak yeen tey ci yi nga xam ne day yàq koor ñu njëkk leen wax nag koor ngir mu wér mën am na yoo xam ne mënu caa ñàkk faw nga nekk ab jullit ab yéefar kooram euh, taxul ñuy wax koor sun borom dafa wax ne ñoom seen jëf yépp wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mantura jëfi yéefar moom du loo xam ne am na benn fa sun borom ndax gëmagut balaa jëf jee am solo da ngaa gëm yàlla xam ne yàlla kenn la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ndawam ngir koor gee wérit faaw dafa bokk war a bokk ci bis yi nga xam ne mane sañees na koo woor te ñu war ko woor bis yi nga xam ne dañuy aay ku ci woor ku ci woor sa koor moom yàlla du ko nangu tey wérut ba ne bisu iidul fitri korite wala bisu tabaski loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam itam wax na ci lu baree baree bari waaye nag am na yoo xam ne dafa yàq koor lu ma ne booloo diggante góor ak jigéen ci biir koor bëccëgu koor lool dafa dafa yàq koor gi moom waaw loolu nag bu fekkee ne ki ko def moo ko tey gi sax nga xam ne forcé wuñ ko ci kooku faw day fay bis boobe boole ko kafaara kafaara danañ ci ñëw mooy wóor ñaari weer yoo xam ne da koy toftale te doo dog benn bis bis boo ci doog da nga tàmbaliwaat wala goreel ab jaam niñ ko waxee eh, ba ak yeneen yi yoo xam danañ ci ñëw insha allahu taala ne ko noonu itam boo tayee fooyee sa bopp ba li ñuy wax mën yu génn ci yow sa koor yàqu na nekk noonu boo fooyee sa bopp itam ba mës yu génn ci moo xam da xalaat eh, ba jigéen wala bu dee jigéen mu xalaat góor ba dara génn ci moom rek xamal ne kooram yàqu na moom boo tayee wàccu itam tey ko wàccu wàccu moom bu la notee nga xam ne dafa jekk-jekk génn te wënnoo ca dara loolu dara mën na ci bañ a ne waaye boo ko teyee nag luuju ko maanaam fexe ba ba wàccul sa bopp loolu ba day sa koor day yàqu yonente bi ma waxoon ne man daraahu qay un wa huwa saaimun fa laysa alayhi qadaa wa in istaqaa fa di boo bàyyee dara itam mu àgg ci sa biir ci sa mbaq moo xam lu ñuy lekk la mbaa lu ñuy naan lu mën a doon rek xamal ne yow sa sa koor yàqu na loolu day yàq koor eh, lépp loo xam lu tooy la itam bu ñëwee ba ci sa put gi rek xamal ne koor gi yàqu na lu mel ne pikiir yi ñuy def nag nga xam ne ci der bi lañ ko jaarale yooyu moom li ëpp ci borom xam eh, wax nañ ne du yàq koor gi lu mel ne nag tuufaa yeeg yooyu nga xam ne ay xeetu ndox la yoo xam ne dañ koy jaarale ci bët eh, wala wala ci ci ci ci ci nopp yooyu moom borom xam yi dañoo sib nga jëfandikoo ko waaye loo xam ne nag weesu na bërëb yooyu ba agsi ci put gi rek xamal ne sa koor moom yàqu na ba ci xeeti cuuraay yeeg yooyu yëpp moytu ko ci bëccëg boobu lañ mooy mooy lañ bëgg nekk noonu itam bokk na ci yi nga xam ne day yàq koor mooy fajar jot nga dégg ñu wax ne bu dee fii niñ koy waxee fii mooy jàpp jot na nga kon ne di lekk boo lekkaatee benn lekk rek xam ne sa koor yàqu na fu fu jàpp jote rek bàyyi lekk fu mu jote rek moo xam nañ ko yëgle ca jumaa ja walla nga dégge ko fa nga ko daa déggee xamal ne moom boo lekkaatee dara rek sa koor yàqu na nekk noonu boo yéenee génn ci koor gi ne moom yàgg nga jekkee gi ne wóoratuma ànd ak sa sago ne génn naa ci koor gi wóoratuma loolu boo ko defee nga xam ne dangaa rafdu as saw mi niyatu raf rafdu saw mi loolu ba tey day moom sa koor yàqu na waaw yooyu ma wax nag mooy yi ëpp solo ci yi nga xam ne day yàq koor loo ci def nag xamal ne te tey ko danga xotti war mooy weeru koor wi ba tax na dangay fay kafaara fay gi mooy beneen bis ngay woor ci loolu weer wii kafaara gi mooy eh, goreel ab jaam te jaam amatut kon li ngay def mooy woor ñaari weer yoo xam ne danga leen di toftale bis boo ci dog nga tàmbaliwaat te tey ko wala nga leel juróom benn fukki miskin kon ñett yooyu mooy ni ñuy kafaara noo ngi leen di siyaar